tey jii Sénégal sept point com dafa ñëwoon ci grand théâtre fekk fii ki nga xamante ne nii moo koy Papa Diouf moo la tënk tombenteeg a daje ak grand Papa Diouf ñoo ngi leen di ñoo suba moom la Sénégal daje ak nga xamante ne nii mooy Cap Vert dañu bëggoon nga wax bon xanaa rek euh, am yaakaar bu baax a baax a baax nag am nañu confiance ci sunu gaynde yi xam nga gaynde moom li olof di wax bugul ngum yàpp lay dunde xaw ma fan de waaye fii kàmb gi stade amitié ku fi ñëw ku ne ah, ba douzième gaynde dara la du yomb te nag gaynde yàgg na ak dooleem fii mooy dëkk la Dior Diop fii mooy dëkku Alburi Njaay fii mooy dëkku Mamba Jaxu Ba tey ndax euh, euh, ñu bari fi lañ fi lañ ne donc euh, doomu mbot nag ndox lay doon suba moom dugal gaña rek maa lax loolu dugal gaña rek waaw maa nga ca biir Pape Diouf maa nga ca biir ak Lions yi di jox ñëpp rendez-vous suba stade amitié bu soobee yàlla dem la jëli victoire